mooy jox coach Carrefour. waaw match face à une équipe de de de Fatick. vraiment il y de la place pour gagner. dans le les gens disent qu'à Kayor ça joue certes mais aussi c'est pas suffisant parce qu'on a aussi aussi de la finition pour concrétiser convertir les occasions pour pouvoir gagner mais sans cela aussi on reste la formation et le beau jeu alors que pour moi c'est encore insuffisant Ouais, tant qu'on joue, s'il a la place, des occasions, il faut les convertir. C'est ce qu'on a fait, c'est ce qui apporte forcément des regrets. Donc il va falloir encore retourner au travailler encore et encore la finition. waaw waaw joué nañu match boo xamante ne xëy na dinañ ci ak tuuti naqar tuuti regret comme ni nga ko waxee ndax wax dëgg yàlla amoon nañ place pour jàll ndax bu ñu nee Kayor rek ñu ni non dañuy football dañuy football mais xëy na football boobu rek doyul football boobu li koy gën a ñamal gën koo jëmee kanam mooy di dugal ay biir te gis ngeen ni à chaque fois dinañ koy am mais malheureusement maladresse bi day bari trop souvent ci photo photo bi la souvent ci kaw góol bi la te pourtant je sais que au quotidien chaque koy liggéey liggéey lu baree baree baree bare xëy na nag dinañ ci mës a am réussir réussite boobu boobu la ñuy ñaanal xale yi xëy na bu ñëwee kenn bu leen mën a téye mais en tout cas daal mënoon nañoo am leneen lu dul gën point bi